du togg ay ñam di ko yóbbu ci barabu seex bi tam moo ma ne ba may màggal talaata man ba may bëgg talaata di ko di ko màggal xaw ma ne sax booba saam am nag wàcci waay talaata dara te talaata nag ku baax kii ko dénkoon Seex Ibra de mag nee na ma sëñ bee ko woolu ci njaarim ne ko ñaari bis yi kat dañoo ñëw fi man dama diis seen bopp muy gaaw ak talaata Ibra Fall nag man jël naa gaaw waaye rafata naa la talaata bis boobee wax nañ ne ab lim ci ay njulli la ca Seex Ibra Fall dugal néegu góor ngir barke la ko ci kàddu sëñ bi talaata nag sëñ Bas di ko màggal di ci def lu ne moo tax talaata ji jot mu wuyu Seex Ibra kon talaata ci bisam la bokk moo tax bis bii ni mu mel ci mbedd yi foo jaar gis mbooloo mi da nga xam ne ki waral bis bii dara la woon te sëñ Bass dara la parce que man am na lu ma mos loo xam ne du jàll ci kaw waaye xam naa ne ku am ngërëm la xam naa ne it ku Cheikh Ibra Fall teg loxo la xam naa ne it la ma bàyyi mbéykan xam ni dénkoon te Cheikh Ibra ko yarat na ma Bassirou Fall mi jàppal bu baax ndax Cheikh Ibra Fall lay dir jam na ko te xam naa ne sëñ Bass Cheikh bi lay dir jam na ko moo tax tey ma amoon yéene rek jàkkaarloog waa Darou Bayré TV ngir seede loolu ma xam ne xam naa ko ci li mën a génn nag laa wax ci sëñ Bass li mënta génn nag dees koy denc ndax kenn du ko nettali am na ci lool dees na ko misaal waaye am na loolu sëñ Moussa Kane làmmiñ du ko laal waaye daal li ma mën a firndeel mooy kii ñu fi indi daal muy sëñ Bassirou Fall Alxuraan moom góor yàlla la goo xam ne ku mas a toog fi wetam digal na la ku mas a toog fi wetam euh, maanaam ñaax na la dénk na la jox na la njariñ man kurus gi ma yor sant Cheikh laa ciy def waaye la la ca amakus néew ci tur wu may faral di laal di ko sant maam Cheikh Ibrahima ak ñaanal sëñ Basa ma ko jox moo ma ne dellu wax nangam moo tax ma yor kurus kon am na lu ma mos ci moom te xam naa ne ku bëri njëriñ la